les élections se tiennent à date wala que les institutions soient rétablies parce que ñoom jàpp ñoom jàpp nañu ne y a une crise institutionnelle boo xam ne dafa euh, veut dire que effectivement dafa lii ak élection yi. parce que mhm. tey avenir élection Sénégal mu ngi tegu ci élection présidentielle bii. naka lañ koy déterminant absolument mm -hmm. donc c'est lié euh, moo tax d'ailleurs souvent ñuy def lapsus boobu mais euh, suñuy wax dafa leer nañ suñu wax dafa leen naañ bind nañ ko bindaat nañ ko bindaat nañ ko def nañ fi quatre conférences de presse di ko marteler mooy il faut réhabiliter le calendrier électoral c'est loolu rek la. s'en tenir à la date du 25. non date du 25 moom c'est entamé aujourd'hui ñëpp xam nañ ko mais mën nañ arranger euh, ab def ay arrangement pour rester au moins dans l'agenda qui permettra qu'au 2 avril mm -hmm. qu'on puisse à, que, que, que à terme est arrivé donc euh, le mandat du président en cours ñu ñu installé suñu deuxième suñu suñu suñu prochain président. ah parmi oui loolu loolu loolu lu mën a am la. Mhm. mais pour loolu ñun dañ ci gis ñaari voie benn bi mooy effectivement euh, soit euh, si le président ne se ravise pas génne boppam ci li nga xam ne ne mu ngi ci dugal Sénégal conseil constitutionnel cour suprême ñoom ñoo war a agir. daal di daal di kase ñaari documents yi nga xam ne ne muy décret décret bi ak loi bi mu kase ko. Mhm. comme ça. on revient à la norme constitutionnelle léegi nag on fera face à une situation boo xam ne ne effectivement mën nañ ko gérer et si ça arrive rapidement dans les jours à venir c'est encore possible de tenir l'élection même si en cas de deuxième tour avant que président ah. mandat bi di arriver à terme ah. beneen bi nag beneen bi beneen bi mooy askan wi taxaw ne ko lii mënu fi amee mm-hmm. xalaa xalaa doo fi jaar ñu nekk benn jàppandoo ne ko président lii mënul nekk ah,